salaamaaleykum mbokku internet yu Wassare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar si weeru koor bu ñu nekk tey nag ñoo fekkee Pikine il faut nga wax Faramareen bi boo tuddee Faramareen mënoo si tudd kenn tudd tudd Benjamin xam ngeen ko Benjamin ñëw na Benjamin non koor gi moo tax du ma ko mën a àggali ñoo ngi leen baax a baax tey nag ñoo ngi fii gis ngeen si këram waaye gis na ñoo ngi fii si bëccëg koor yi ndogu des bëri na lool lool doo des na si mu si ñaari waxtu waaye ba léegi gis nga nit ñaa ngi fi fees dell tey nag nañu fi yu mag a a mag pourquoi pas sax Ndiaga Seck loolu la ñuy def dem xool réaction waa famille Benjamin ak képp koo xam ne tey jii nii ànd ndongo wala xaytam fii nii si Pikine si kër si Benjamin salaam bokk daa jëf. Diop Faramaré ñu ngi lay nuyu. waaw maa lan. seen de camion. camion ñaata la woo. non camion yi bari nañ duñ jeex. <laughs> ma ne camion ba dégg naa temps yii yéen a xaalis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 mu nekk benn artiste boo xamante ni wax dëgg yàlla vraiment mel naa ñun noo xamante ni toujours rek yaakaar naa bi mooy deuxième édition bi nga xamante ni tey jii ñu teew Pikine pour ànd ak moom servir ay ndogu waaw kon. ah waaw kon mbégte la quoi nu ma ko mën a yaa ngi dégg. en tout leer ba leer mooy euh, yaakaar naa ne yéen bii passé n'est-ce pas yéen yéen bi paas yéen a fi yéen a Pikine xaw ma ni ñu koy waxee. Wassare ah, kon ok bokk nag suñu deneen si bi fi ñëwoon bi passé voilà wax nga dëgg mais en tout cas ñu ngi kontaan ci daal di xamal ne ka carrément Fallou Benjamin moom wax dëgg yàlla ah ñun amuñu fayam daal parce que lu mu ñu woo heure bu ñu ko wooyee mu wuyu ñu heure bu ñu wooyee ñun tamit duñ def lu teewal ko xam nga ànd ak moom ci li nga xamante ni mooy ndog yi xam nga mooy loolu daal. ban relation nga am ak Benjamin pourquoi ngeen créé Benjamin famille. non Benjamin fekk pourquoi ñu ngi salué ñëpp di ziar ñëpp di màggal ci bis bi mais Benjamin pourquoi ñu créé ko mooy ñu gis gis bëgg ko suñu bopp mu neex ñu trop ñu toog xaaral mu ne ñu tey ñu créé fan club Benjamin pour ñu pour jàppale ko ci bépp côté. lii nag de c'est la première fois Fall ñu ñoo ko bëgg suñu bopp ñun ñoo ñoo bëgg ko suñu bopp mooy mu ñoo bëggal ñu boppam tamit mu ànd ak ñun ñu jàppale ñu ñu jàppale ko mu jàppale ñu ci lépp ñu ànd ci kaw ci kanam ndaxte Fall moom macha allah ndax bañ ko sosoo ba léegi bañ ko ñëwee waxtaan ak moom ko dafa ñoo nangul lépp même famille mag waajuram ak yëpp bëgguñu ci lépp ci benn côté bépp kon daal lii li ñuy def du c'est la première fois du c'est la bëgg nañ ko su ngeen def ko defee at yi at yi at te boobaa tamit yéen ngeen koy teewee di ko fekkee ndaxte lii dafa rafet nga ñu bàyyi yitte yëpp ndax fàllu ndax fàllu moo ko jar fàllu mun ñu wax moom lëpp daal yàlla na yàlla di di di naan fan ci club Benjamin daal di ànd ne leen ñu gën a jàppoo gën a jàpp gën a def kanam rek jëmale affaire yëpp ci kanam ñi fi nekk ak ñi fi nekkul yëpp di sant ñëpp nag tamit ñi si jàpp ak ñi si ñëpp daal nee naa am daaw amuñu fayam falu benn bi daa amuñu fallam bilaa wala amuñu fayam di ko ñaanal daal gudd fan ak wér yàlla boo ñu bàyyi lañu fi ba ci kaw ci kanam ba li ci moom àggale ko ci bisam ci léppam lañu bëgg. waaw ñu ngi taxaw kii di Mass Kock kii nekk président Benjamin Family Mass ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay siyaare bu baax. lu ma bi. waaw euh, di nuyu mbokku julli yëpp di siyaare mbokku internet bi yëpp ñi nga xamante ñu ngi ñu seetaan waaw euh, ku ne xam ne nag euh, tey dafa nekk loo xamante ni bés boo xamante ni euh, saa bu koor jote suñu xel da ciy dem muy Benjamin Family yàlla dafa def nag at mu jot dañuy def ay ndogu quoi waaw. ah kanaa yàlla day def chaque année ñu def ay ndogu ñu ànd ci ak Benjamin Family ak Fallou Ndiaye Benjamin te chaque année dañ koy def ren ñu jàpp ko muy tey lundi le ñu nekk ci programme bi deni jaajëfal yéen tamit seen teewaay. la moo waral ngeen créé maanaam benn sama famille. waaw benn sama famille nag li ko waral mooy euh, comme nit ku nekk am nga fans muy star bi muy a keneen ku mu munul doon nit ku munul doon am nga fans yow mii am nga fans am na ñoo bëgg nañ la man mi am naa fans am na ñoo xam bëgg nañ ma. comprendre nga yàlla ñu nag ak Fallou Ndiaye Benjamin ñu bëgg ko def ko suñu xol tax ñu kéréel ko fans club fans club bi nag amagul un an wala bu amee un ci lay yem terewul tamit ñun dañuy liggéey. tey ay xale lañ am nañ am na ay xale am na ay mag am na ñu nekk Sénégal am na ñu nekk Europe ñëw bokk ci groupe bi ñuy liggéey loolu moo waral Benjamin Family. Euh, yan projet am yéen waa Benjamin Family fi mu ñun suñu projet mooy euh, ay xale lañ te ñuy liggéey dañ koy yaatal encore une fois dama koy wax saay su ne ñun Benjamin Family tàllal nañ tàllal nañ ñëpp loxo bépp autorité képp koo xamante ni personne nga bëgg a ñëw bokk ci Benjamin Family ubbil nañ la ay porte nga ñëw bokk bëgg a bokk Benjamin Family ñëwal. te ñu ñu por fen ku bëgg a bokk ñëwal parce que ñun dañuy liggéey te ay ndaw lañ nekk ci yoon di liggéey parce que lii nii ñu def nii bokk na ci lu yàlla bëgg nit ku woor ba mu ngoon nga yëkkati ko nga yëkkati lekk jox ko yaakaar naa ne loolu fierté la te sunu borom mu ñu koy may te ñu ngi koy mun a def. merci beaucoup. waaw euh, di kontaan ci ci yéen. vraiment ngeen def seen déplacement ñëw fi jël programme bi. di jaajëfal waa Benjamin famille yi di jaajëfal képp koo xamante ni daf nga fi teew Diop Faramaren Ramadan social euh, euh, Fifty Family maa ngi siyaare ñëpp vraiment di ñaanal ñëpp jàmm di wax na la bés bi bésu ñëpp la surtout benn famille di siyaar suñu benn jigéen a ah, Tulaay borom Espagne vraiment mu def ci bés bi loo xamante ni ñun xam nañ moom xam na dañ koy ñaanal fanu gudd ak wér gu yaram ak ku nekk Benjamin Family képp ku ci def sa ñaq ñun waa Benjamin Family ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax nag ñun dara xayoogu defaguñ dara dañu soog a door affaire yi mu ngi kanam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 waaw metti na méttiwul métti na ci benn côté mooy li muy waaj a jeex boo ñu métti dina méttiwul mooy tawféex gi ci nekk donc métti na méttiwul rek lay wax. koor géwal nu muy demee koor géwal. ak ñoo mën a woor ak ñoo ñeme koor te mën a woor mais ñun moom suñu koor xam toog waxtaan bi en famille kafoore voilà lépp ñu teg tënk ko ci koor rek xam na ci koor la ñu nekk moo tax duñ ko yëg waaw Gueweul moom je pense que dara méttu ci moom lépp day léger moom rek mais sant yàlla macha allah macha allah comme que dugg nañ ci baax bay waaja xaajal nii donc kon sant yàlla. tey ñëw fii si kër si fekk si Benjamin nga nekk mbokkam euh, nekk rakkam euh, yan kàddu nga ñuy jox tey ci li mu organiser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 delloo ko njukkal Serigne Touba diko def tayal rek tax donc je pense que lolou moy li jitu parce que ñu nay ñu nay alalu Serigne Bamba lañ waaw ñu alalu Serigne Bamba lañ moom mu bëgg Serigne Touba lool. donc kon li bu démé ni c'est normal parce que Serigne Touba mom, lo koy defal rek na doon jam, parce que lay fay bu wis la. waaw non la démé nak non la démé donc mu nek initiative bu rafet rafet ñun ñukoy rafet lu ñu ñi dé rek sha allah xamni nak yamul fi chaque année day gëna yok édition day gëna yok inshallah rabbi chaque année day gëna yok bernday di gëna bari waaw mbooloo mi di gën bari ah ci ci ci barke Serigne Touba incha allah noonu rek lay demee.